léegi we just make it quick rek because man moom tuba taxi driver bi daf maa rey pak nit lu ma ko war a fay tey mooy loolu looy lu may wax mooy um, right now bugga naa pour one pack moom mu wax comme apologize to every Gambian apologize jabaram ba pare di leen ñaan comme lu ñu wax rek ngeen jàppale ko lillahi wa rasulu xebu dara nañ leen ko jàppale rek nañ leen ko jàppale lillahi wa rasulu nañ leen ko jàppale léegi one pack um, gars yi la woon léegi mun ngaa wax ak gars yi ñu dégg la waaye def ko rek in in in in two minutes. you know wax rek Gambia laa am nu ma munti mel laay mun a doon te mhm. rek mun a mutal. Mhm. lu ma manqué si man Gambia ko mun a def si man. I'm very sorry for the Lola and I want misbehavior or whatsoever. I'm not here to justify anything. I'm here to just say, sorry Gambia, I need you more than before. Sorry Gambia. Mm -hmm. But to be honest, I'm not tolerating people greeting my wife with hugs or calling my wife. Waaw loolu sa understand that. I don't joke with that. My wife, my music, you don't you, you don't go you touch it you, you get me mad, you know. But uh, after that, I'm sorry. Mm -hmm. My wife, let everyone stays away when you want to come with my Wow, so ne ne ne xam ne jabar nekkul ku ñàkk but right now we are not here to. da nga I'm very sorry Gambia number one for your for you seeing me in a rough form but for my wife I'm going my niece with no fear or favor by the man of the day no yaa yow laa am dee yow xam nga lii mosul am delu te nekkut ne da nga defal nit sax mm. nga amin lu ma sela si yow laa ko xam ne su la naxarewu toon wala nga mu neex ya ya la dooma dooma dooma sela yaa am ak yàlla ak nit ñu baax am am mixal génn am not scared dama jos ragal pour ñàkkal ndeysaan mu ne dafa ragal pour ñàkk jabaram loolu moo tax muy def action yi yëpp waaye di ko ñaan tamit pour mu ceeñ rek ngir jabaram mu ceeñ ngir jabaram te yéen tam Gambia One Pac pare naa ceeñ nañ leen ko jàppale ku doon def naka sudut noonu tey mu bugg a ceeñ tey ñu jàppale ko jabar ju baax la am billaahi jabar bu baax la am te yéen tamit ñu ñoo mun a dimbale One Pac mu stay ak jabaram nekk ak jabaram jàppale jabaram lii lañ mun a def nañ leen ko jàppale bugga naa ceeñ ku mun a sukar dem apologize jabaram nga xam ne kooku ku baax la nañ leen ko nañ leen ko nañ leen ko nañ ko jàppale nañ leen ko jàpp dafa ragal mu ne ñu nga fóon sa jabar gars yi gis nga fóon ko jabar bu baax la am ndeysaan jabaram dafa jooy nag ndeysaan xolam dafa feesoon you know waaye ku baax la moom tamit kontaan naa lu ma ñëwee ma gis ne you know delluwaat nañ nekk benn you jabaram ku baax la waaye lu ma leen di ñaan yéen tamit Gambia ñu jàppale ko nañ leen jàppale One Pac nañ leen jàppale One Pac ñu jàppale jabaram jabaram toog si booram mun koo dimbale ku mu noonu di def naka su dut noonu tey mu bugg a change by everything ndeysaan mu ne soo gisee muy def action yi yëpp dafa bañ dafa bañ jabaram naka dafa bañ a ñàkk jabaram bugut koo ñàkk loolu moo tax yoo tamit Toma lan nga am pour wax gars yi you know dama bugg a pour nga waxtaan ak gars yoo tamit you know nuñ leen mun a jàppale ñu jàppale leen lu ñu leen mën a supporté ñu supporté leen di am nga yow tamit jëkkër ju baax waaye dafa nit ndimbal te ndimbal boobu ñu tamit duñ la si bàyyi ñun tamit amuñ xaalis de waaye am nañ plateforme te am nañ ñun tamit xol bu rafet boo xam ne mën a toog di ñëw di waxtaan ak yéen suñ gisee nag muy def naka sudut noonu ñun dinañ ko mere ko ŋaaña ñun waaye yow tamit lépp lu la naxari rek pour pour rus tamit pour pour reach out ñun ñun tam ñu mun see wax waaye bëgguñoo gisaat comme action bu moo def te yow tamit bëgg nañ nga gin koo jàppale lan nga am pour wax ñi ñi because ñi kontaan nañ si yow di wax nañu ko jàppale dafa ñu jàppale ndax man même affaire bi ni mu demee nii sax comme man bu sama diggante moom affaire bi ni mu demee nii man dafa gis ne jiital fakastal la yuuxu affaire bi ñu toppatoo ko sonn ci ba mu kii ni mu demee noonu moom dafa gis ne dañ koo bañ wala dara bañuñu ko man nee ko ñu lay seetaan ñu bëri ay ñu ay mag lañu mhm. waaye ñu ñoo ngi gërëm Gambien yëpp man jiwuma kenn waxuma nañ ko ko dégg ngeen ci baram wax comme wax rek nañ ko nañ ko nañ wan pak ñun luñ moom loolu lañ war luñ si loolu lañ wara a jàpp tey su ko jigéen ju baax dem wara a fekk si pour ko kon ku baax la nañ leen ko jàppale nañ jàppale jabaram jàppale wan paak you know mun a def rek maa ngi leen di ñaan lillahi wa rasul Gambia nañ leen ko support trans boo leen am sax jàppale leen ko rek def leen ko lillahi wa rasul doo leen ko musa ñaaka te doo leen soona alal boo jël énee ko nit defal ko ko pour mu dund si pour mu jàppale si boppam loolu loolu la loolu tiyaabu ba àdduna tukki laa toppa toppa ba sa baameel toppa sa ay njaboot nañ leen ko jàppale jabar ju baax la am nii man moom duma toog di seetaan jabaram di dem you know moo tax ma def suma kéemtalaay kàttan def lépp lu ma mun bàyyi suma soxla yépp ñëw pour jàppale ko waxtaan ak moom waxtaan ak jabaram apologize na jabaram bi mooy ñaari yoon mu ngi apologize bu ko sama ko ne ni nga def ba génn social media di wax su ma jabar nii ku ko toppa ku ko def nii noonu laa bugg a tey xam ne am na lu naxari sa jabar du ma toog di leen seetaan ñëw tamit nga apologize yow tam sa jabar ni nga def ba génn àdduna yëpp gis la defaat ko àdduna yëpp gis la nga apologize sa jabar because lu nekk rek nit nit rek la man xam naa loolu man damay mer man ma mer keneen ak keneen dafa mer dama tolu stage bo xamne buguma ken waxal ma buguma waye amna yo xamne fak suñ ci waxu du mun soti di len ñaan rek billahi dafa am jabar bu baax lool la dégguloo mu you are blessed with a good wife Pak. dafa am jabar ju baax jubah ju baax la fi fekka musuma mit jabaram personally one paak nak we have been meeting but jabaram musuma ko mit personally waye buma ko gisee ma tok wax ak mom ma xamne ki ku bugg one paak la dafa suka apologize ko rek mune ne ko waw billahi jigen ju baax la nañ len ko jappalé nañ leen jàppale woon paak ku ko mun a support please support leen ko yónnee leen ko lu ndaw ndaw ndaw may leen ko xaalis ñi nekk Gambie ak outside yëpp ñoo tax may wax nañ leen ko jàppale you know nañ leen ko jàppale ñu ko utal ko place bu mun a nekk jabaram tam fu mu mun a nekk ñu support ko trans su boo dugal bul ko xeeb you know soo ko mënee def turu ma baax na wan paak luy sa na dama bëgg a gars yi ñu reach out yow personnel loolu tam is very important two leen ma ngeen bindal ma ko fa nombaam bi dama bëgg ngeen reach out to one pack personnally soo leen koo support di ko jàppale ngeen jàppalee ko ko turu moom ngeen ko ko turu moom te bëgg naa képp képp ku ko support ayda mu oo jabaram wala mu oo ma ne ma diw support na ma ma ma xam ne diw support na ko ñu seet naka la ñoo def xaalis boobu noonu lan lañ see def pour mun a koo jàppale ak jabaram ku ko bëgg a support support ko directly doo leen ko ñàkka doo leen si sonna te doo leen ko réccu nga ne waxaatal nomba bi pon paak baalal leen ma ngeen bindal ma nomba bi ma pin ko foofu 247 plus 220 247 26 28 plus 220 247 2628 defuñ nomba bi nag pour ñu soonal ko waaye dañoo def nomba bi pour ngeen jàppale ko jabar ju baax la am billaahi jabar ju baax la am bëggatuma nag mu ñëw on social media crazy su la kenn tooñee bala ngaa ñëw wati social media utal ñooy waxtaanal utal ñu laa aida one part wallahi soo ko defatee ma bàyyi la àdduna àlaxira man as an activist I can come out and be crazy but you as an artist everyone is looking up to you am na yoo xam ne waruloo koo ñëwee on social media nga war a téye ñaari jaasi nit yi dañ laa mere nit yi dañ laa ragal te bugguma ñi ñi mere la ñi ñi ragal la thank you so much Katel eh bro daa ngi nii Katel ku baax a nekk nii te xam naa ne loxoom dina agsi loxoom dina agsi ku baax a nekk nii Katel bro bro bro dama bugg sa loxo mu agsi xam nga lu tax ma wax la si weeri koor bi sax jàpp na si bu mu ñëwee daf dee support Gambien yu bari daf dee support ndaw yi bu baax Katel jàmbaar la su ma waay la nag su ma broda la musu su ma maa xamante moom waaye bu mu ñëwee nii tasee nañ xamante nañ mu taal motoom ñu waroon a dem programme yi si Youssou Ndour bi Fatou Camara moo ko organisé woon Katel moo drive motoom yóbbuñu ba foofu te demutoon si programme bi ma nag su ma ay xarit jërëjëf bro waaye bugga naa nga jàppa si bro bugga naa yéen ñëpp ngeen jàppa si Mouhamed Mouhamadou Tarawale Tarawale bugga naa ngeen jàppa si Katel bugga naa jàppa si yéen ñi nekk si live bi yëpp di comment bugga naa ngeen jàppa si Adama Ndiaye Malick Dambel bugga naa ngeen jàppa si yéen ñëpp bugga naa ngeen jàppa si man sa yoro balde balde banna bugga naa ngeen support one pack nombaam baa ngi noonu kool leen ko personnel ngeen jàppale ko waxuma kenn kool ko pour sonal ko dama bugga ngeen kool ko ngeen jàppale ko ngeen support ko right now nii néeg bu mu nekk sax amut ko moo jabaram te loolu rafetut loolu ñaaw na loolu ñaaw na man tamit nag bala maa dem incha allahu rabbi pour ma wax leen ko rek nekkul affaire yi gis taal waaye dama bëgg pour won leen ne ñu support ko man aw ma lépp luñ ma supporté man tamit pour ma dimbale suma yaay ak suma famille man tamit dinaa ekkati incha allahu rabbi because saan mu ne ma ne xamuloo sax na tey ndax lekk naa man ak suma jabar ndéewoon na ñaaw na si jigéen ju baax toog nii ku ma ko def goor guma ko def du ma fanaan du ma indu sa man góor gu ma def loolu du ma indu sa kër ndéewoo jaaruma si ñaaw na te métti na waruñoo toog seetaan woon paak if not kii ñu ngi koo encourage pour mu dellu si nu meloon te buggut a mel noonu live boobu buggu ko One Pac dafa toog dafa jooy One Pac suy wax ak man sa téléphone dafa jooy loolu rek dafa metti dafaa jooy nga xam ne kii bugg naa change bugguñ mu nekkati mel noonu man ñaari jaas yi bu nga ko téyee démba démba dama dem ba bugg a comment ma bàyyi comment bi because dama mer ma xam ne kii am na ñu ko bugg a ñu ko bugg bari nañ waaye duñ ko ñeme ma ngi leen di ñaan ñeme leen ko ku xol xol bu rafet la am ku xol bu rafet la am dafa nit mental health treatment dafa nit ku ko dimbale dafa nit ku ko teg place dafa nit ku ko jàppale jàppale jabaram jabaram rek la bugga dafa bugg a jabaram te jabaram su nekkee si dara dina ko jàppale ni jigéen ju baax a toog nii bugut bugut a gis jëkkëram torox fu mi jógee ak magami jógee ba Sénégal ñëw rek pour bokk ñëw attend event yi jëkkëram nga xam ne kii jëkkër jigéen jigéen ju baax la jàppale leen ko war a suul rasul nombaam baa ngi noonu nombaam baa ngi noonu bugga naa ngeen yoone wan paak lu àgga 100 000 tout tout hundred sa hundred dalasi sa bañut ko loo ko yónnee dina ko apprécier te xam naa ne soo leen ko yónnee man dinaa ko yëg nit su ma ko yëgee bugg naa affaire bi am fu mu jaar jabaram am si lum nekka mu jàppale ko jabaram su su amee si lum nekka jàppale jikaram rek wan paak bu sonati man musique carrière waxaguma ko de waaye man jabaram moo tax maay wax fu mu nekka nii nit jigéen la te nit na ndimbal dama bugg a ñeen jàppale jabaram mu am si lum nekka am si lum téye jabaram bii su téyee si dara wan paak dina nekk si jaama because xasul bu moo def yëpp daf koo def pour jàppale jabaram ak famille kon nag jabaram su nekkee dara because jigéen mooy mun a téye kër jigéen mooy mun a tiye lu bari jigéen si lu mu bokk rek soo leen ko rek mu mun a dimbale jëkkër te da moment ne jëkkër jëkkër jabaram am na si lu nekka am na si lu mu téye jëpp soonati dina ko mun a dimbale su lu bari jàppale leen ko jàppale leen ko lillaahi wa rasul dimbale leen ko lillaahi wa rasul loolu laa leen di wax maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yan na yàlla yokk a jaama you know du ma si vidéo bi nag bii moom because am naa yu bari si yu ma mun a dem one part once again maa ngi wax Gambians yëpp ñu jàppale la te once again apologize to the Gambians ah wane leen ne regret nga ko te doo ko defati one paak bugguma nga ñëwati téye jaasi jaasi bu ko téye bul tiye paaka you comme loo ma wax rek in private you want to yes want to change you want to be someone koo xam ne mooy loolu danga am stress te da nga nekk si problème te we can understand that ñun ñëpp we are dañ dee traumatized sometime nekk si problème boo xam ne duñ ko dee mën a handle and we just have to react ñun ñëpp jéegal nañ la because bi dafa baax maa ngi di ñaan ngeen jàppale ko ngeen ñaanal ko tamit one pack nii na ko ko ñaanal Jalika ñoom Jalika yépp maa ngi leen di ñaan Jalika Juuf Juufa ñoxo baay support leen ko mënumaa create mi kam bi Kambe Baboucar mënumaa créer GoFundMe Gambia soo fi nekkee doo ko mun a créer waaye ku ko mun a créer tal rek créer tal leen ko tamit waaye bu mu teree tam ngeen support ko you know Sey Touré kan please set up waaw Sey Touré suma sista ku baax la Sey Touré tam bugga naa loxoom ñëw te mun naa bugga naa tam mu foon GoFundMe ñu jàppale woon paak ak jabaram nañ leen ko jàppale nañ leen leen jàppale nañ leen leen jàppale dañ nit ndimbal you know te xam naa ne Gambians will support you one paak from now on xam naa ne suñ fi jógee ñu bari dinañ la seen message ñu bari dinañ la yónnee xaalis te bëgguñ ñu feeñ waaye waaye appreciate and everything te xam naa ne di nga ko apprécier ndik am nga kuurale nga walee ne jërëjëf ñoom ñëpp ñu kontaan you know nga nga ignore all the negativity yuy ñëw bul si wax man man su maa yow sax uh, su maa yow su maa yow programme bii nga def suñ la koolutee bu leen kool suñ la waxut kaay jël sa xaalis bu leen kool bu leen lijjante te xam naa ne Gambien si nekk fii tey dinañ la support aw ma paas bu may demee sax ndeysaan te xam nañ ko ndeysaan ma kool fo duñ ma kool sax because kool nañ ma pour ma ñëw ma ne leen ne man aw ma paas bu may fayee sax. imagine leen kenn amul xool pour taal motoom ñëw jël si ma. you get me so they don't give a shit. you get me industrie bi moo mel noonu bëgguma dem part boobu. waaw loolu deal with you later. waaw Gambia I'm very sorry please sincerely. waaw I'm very sorry. I'm very sorry. loolu tam soo koo deal with part eh, one part sooy deal with bit about that issue bëgguma nga génn social media di saaga. ah pare naa si yooyu. sa jabar bul ko si dugal. bugguma nga musa génn si social media di jéem a wax sax suma jabar lii lañ ko def lii lañ ko def ba bay ñëw di wax ne sax suma jabar su su ko demee ba def sax loolu bul ko def dafa ñaaw dafa xaraam te dafa bon te loolu dangaa tooñ sa jabar nit ñun ñëpp gis nañ sa jabar how caring this woman is suma jabar sa jabar xaaral rek man damaa xuloo ak yow fu mu nekk sa jabar fu mun a ñëw nga def social media live mu jël la yow ponkalum jëmma ak sa sikim ak sa jaaw boot la <laughs> mu ngi xool na dafa bejaw <laughs> ah war la bok ah def life, àdduna yëpp di ko gis nga xamne jigen ameni. ju baxal la amee nii ba am elek, ya nga jigen tay jigen bi topala so la ba am ñene ñu bari dañu ñëw waaye ki soko ko ak yalla toroxal la soo ko sonalee gis yoni aljana bi bunti aljana do ko gis fa jabar bi jigen ju baxal japp ko te ma ngi wa Gambie yeb ñu ko len ah, ko suma jabar du jabar rek ndeysaan suma jabar harit la yaay ak sista baro njaay baro njaay bu gana yow tamit sa loxo ñew suma yaay bu ma jur sax suma jabar lim ko munal mhm. doom yu jigen lim ko jural jur sax munal luñ ko toni toni one pack mu ne amul account you know amul bank account waye mun ngeen ko yone to any of these bureaus any of these um, western union um, um, ria Moham um, moo xam moo xam Western Union la moo xam Yera mu Ria moo xam APS moo xam Supersonic moo xam um, moo xam fii nii tamit um, naka yaay yi foo leen ko yónnee rek baax na foo gram foo leen ko yónnee xaalis baax na nombaam bi mu ngi fa turam rek ngeen niit one pack your real name moo nekk sa ID card bi yaa ngi amee ID card bi naka B A bi na leen ma ko Baka Seka Seka bi na ngeen ko dee bala Secka B A L L A. Balla Secka. A bindal leen ma ko képp ku bugg a yónnee one pack mu ne am na ku taag Bakary Badji please come come and here xaaral xaaral please come come to his aid waaw really really minister of youth and sport ah honorable minister war na see jàppa war na see jàppa de. war na see jàpp bu baax a baax a baax yéen ñëpp da ngeen war a jàppale one pack this guy want want to be want to change and lii ñu bàyyi ko ignore ko muy gën a traumatise that will not help thank you so sool ngeer sool spell na ko waa ma ko ok lii mooy néemi one pack bi si ID kaatam bi yónnee leen ko noo leen ko munee ngeen jàppale ko man duma ko bàyyi one pack benn xaalis benn xa benn bu ñëw soo ko jaayee cigarette duma la ko baalal aha cigarette waxuma la taay sax de waaye soo ko ko jaayee duma la ko baalal aha àdduna ak àllaaxira cigarette xaalis bi dama bëgg a boo ko receive yaa sa jabar yéen ay dem tegal ma ko sa loxo jabar ngeen kool ma ma xam ne digga digga waaw ku bëggul nga tudda turam because ñeneen ñi dañ la dee wane bëgguma suma tur feeñ bul tudda turam su la neexee defal live gërëm leen ne am na ku ma yónnee 2000 am na ku ma yónnee 1000 dalasi am na ku ma yónnee 500. am na am na ku ma yónnee 5 dalasi. dama bëgg nga jëf live wane kii yoonee na ma lii xaalis bi yëpp dañ koo budget binda ko. binda ko ba mut sa jabar wax ñu lan la bëgga ñu dem taxaw si ba mu jiyee. ñu ibil ko dara mu nekk si. sa jabar su nekkee si jaama nga nekk si jaama. yow yaa ngi wax music industry music industry bi ngaa wax ni yow One Pac amuloo dara loo fa dugal. tay so bëggé am lo fa duggal sa jabar fa mu am si lum nekk nga am ci lo nekk loo jàpp pour support sa boppa yo sa nit yi nga yaakar sa yi nga yaakar noonu am sa jabar am na loo xam su ko amee doo yaakaarati si kenn li nga am suma musique yaa jeex na tak léegi yo sa jabar su nekkul ci dara nga bëgga def music. Non, naka la mo mëna nekk yo yow nekkuloo si dara sa jabar nekkul ci dara nga bëgga def music. Fi adna bi kenn dimbalé tut kenn ñuy dimbalé benn benn lañ ci amna na borom xol yu rafet yu nekk fi. am borom xol yu rafet yu nekk fi xamna ne dinañ la jàppale lillahi wa rasul ma ngi leen di ñaan yeen mi nekk fi bu len ko setan. jàppale len ko bala seekala tuda li moy nombam li moy turam bi correct néemam bi all what you need when you want to send send him money ku nekk Gambia ak ku nekkul Gambia turam bi ngeen nit ak nombam bi Repeat sa nombam bi one part plus 2 plus 220 247 2628 bu neexee yalla ñima gis ni ñuy bindani ken feegu ci dinañ la yone xaliss dinañ la support dinañ la jàppale te cigarette du ko si jënd su ko si jëndee baalalu ma ko aha su ko si jëndee baalalu ma ko aha bu gën a xaalis bépp ñu dajale ko suñ ko dajalee binda yépp ak ñu ko yónnee xaalis ku si bugg sa tur feeñ mu feeñ ku si bugg sa tur mu feeñ mu feeñ waaye dina ñëw toog wax ñu yónnee xaalis yëpp ba pare wane amount ci xaalis bi yëpp ba pare nag ñu ngeen di gis live ñuy koo dem dimbale ekati jabaram dara am lu jabaram di start waaw mooy whatsapp nomba bi waxaatal nomba bi one pack 247 2628 tànk you so much timeless timeless tamit jàmbaar la yéen ñëpp ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf tànk you so much broda Kaatel Kaatel yow ku baax nga jëf very good Baboucar Kambi waa lii ngeen nit soo leen ko buggee yónnee xaalis please yónnee bu baax ñu fi nekk thank you so much thank you so much Rohi Baaji Baaji Basen jërëjëf Baaji Basen Baro waaw tari thank you so much képp ku ko buggee yoonee xaalis lii ngeen nit loke am am am am contrée bi ñun ñëpp xam nañ ne Gambia lañ nekka yónnee leen ko foo buggee ngeen yónnee ko Serekunda burusu bi foo leen ko mun a yónnee rek si any place rek dina ko dem jëli bu neexee yàlla you know te sooy dem dinaa la always boolee driver bii mooy dem collecte xaalis bi yow ak moom ngeen ànda suñ koo fay ñu fay ko ngeen dem ak Fatim ñu ñëpp ñu dem naa la jox nombaam jox la any time boo war a jëli xaalis kool ko moo moo laa jëli te dama bëgg a mu xam xaalis bi lan la moom tam mu bind ko because dina ma indil report dina ma indil report lii maa leen ko won ne gis nañ ne ñun ñëpp bokka ne ñu change life life yi one part ak jabaram ñun ñëpp yéen ñëpp jàppaleen si jàmme ji lanka Lamin Mbay Mbay Mbasu yéen ñëpp jàppaleen si Njaay Jaata Njaay ah jàppaleen si yéen ñëpp jàppaleen si please jàppaleen si buñ xaar only the government can do everything ñun ñëpp nañ leen si jàppa buñ xaar kenn fii buñ fi xaar kenn dañ leen ko jàppale ñu gis ne ñun ñëpp collectively as Gambians try nañ ñu change ñu change life life yi one part ak jabaram you know suñ ko dooree fii mun nañoo def lu baree baree baree bari tey we want to start with one part ñu boole collectively change life am képp ku ko def doo ko mus a réccu wallahi képp ku si yoonee dara doo ko mus a réccu ndeysaan om om oma mu ne mu ne you are you are his favorite yow nag omo yow tamit amal dara loo def you know yéen ñëpp jàppaleen si lii mooy nombaam bi lii mooy néemam bi yónnee leen ko xaalis si turam you know any location nag boo leen ko yónnee dina ko dem jël am naa fi taxi driver boo xam ne dina ko yóbbu dina ko yóbbu dem collecte xaalis bi moom mu wax ko ne nangam lañ ma yónnee taxi driver bi dina nataal kayit bi sen ma ko wala mu indil ma ko ma bojet yépp mu téye xaalis bi jabaram téye xaalis bi suñ paree xaalis su demee ba toolu tu tu anything jabaram wax lan la bëgg a ñu ubbil ko ko moo one paak ñu nekk fa di ko diko sponsor diko support diko promote man suma maas yi promote dinaa ko def suma social media platform yi mom tam dina ko def ñu promote business yi jabaram ñu gis ne we change the life of one pack ak life yi jabaram ok mun ñu wax sosé légui mun nga wax sosé pour translate some of the things luma do ko duwa pour ñom tamit ñu xam lan la nekk di wax suma mbokk yi rambul am very sorry am kiliya dɔrɔn nɔ n bari muso n'a mu ko ti bola kalama la fan o kusi ante arona min kɛta fana am very sorry min ye my kuwo te rek no hañi moona mina musoo bala n def ku kelen na maslaha la no nda alin tara long alin like alin na musoo respect k'a fɔ kɛn kari kaco through my wife or testing whether because you underrate me you don't. you don't come that bul ñëw foofu. lañ lañ lifin rek. mooy yëpp jabar mooy indi problème. waaw waaye jabar jabar jabar soo ko toosee rek. xoolal kenn du nopp suma kenn du nopp sa jabar. Ah. xoolal nopp nopp nit nopp nit loo koo tere si àdduna bi ah yàlla dafa bind nit yi te ñuy mun a nobante tey sa jabar nopp na la yow nag yow sa jabar xam na ne man dama la nopp yow sa jabar ndax xam na ne man dama la nopp. Eh, yow jabar yow jëkkër góori lan nga góori ñeneen ci jabar yaa ngi woon sa jabar nit mun na koo gis nopp ko waaye loolu taxul mu jot ko sa jabar su defee ndox si boppa mu fees boppam benn góor du ko toppa di ko nob uyu ma rek déglu ma benn góor su ko góor nobee tamit moo moo war a fees boppa te xam naa ne jigéen boobu nga am waaw yaa ngee gis kon nag soo fi nekkee ne ñiti xool sa jabar rek ne soo dafa nob suma jabar dangaa soona wan paak sa jabar ñu ko nob bari nañ man xam naa loolu keneen ak keneen xam nañ loolu man man tey su ma amee jëkkër su ma jëkkër am na am na waaye keneen na ma nopp su ma gisee waaye loolu taxul bu jot ma yow yaay def sa boppa bi ndox nga xamne sa jabar jigen la tay yow so demé nek social media suma jabar diw daf konof diw daf sa jabar nga nekk di traumatise koku mu ngi am fay daan tok toogam ya ko tuda sa jabar mu ngi mu ngi mom ngay traumatise bul ko defat lu la bëgg a wax la bu ko wax moy fi do fi tok ne ku bu len nopp suma jabar ñu bari dinañ Saja sa jabar te do ko xam hmm. lena rek moy nopp nga sa jabar sa jabar na sa jabar na def ndox si bopam tay nak man as from today man dikem la ya nga understand te nasi si mungkin mu ngi smile smile na tey smile na léegi daf wan paak jooy yu rëy fi jooy jooy yu fi wan paak jooy waaye lu ma laay wax rek léegi dama bëgg nga bàyyi affaire yi daf diw dafa nopp suma jabar diw from diw dafa nopp suma jabar sa jabar am na fayda waaw am na fayda and I want um, waaw ñoom ñëpp non Zanu um, am na Zanu Williams bu nekk bul expliquer lu négatif America waaw Zanu Williams yow suma waay nga du comme zanu lockdown bi de yow zanu Williams ku def video bi foog ne yow lay wax you know we have no bitter past we friend mhm. feebar naa Gambia nga yóbbu ma lopitaan ak sa van bi benz bu ñuul xamuloo suma jabar sax at least understand naa la yow sa pain but mun nga maa kool nga ne ma ah, paak nu fa demee bi ko man maa yow seewoo wuñ benn bon te suma xarit nga I owe you good feebar naa fii maa ngi kóolooli taaba ay naka la tudda kadi kadi bi suma biir bi daaneel ma yaa ma. waa zanu baalal na zanu. zanu baalal na la. léegi lu ma nekk di wax am na ñuy binda xaaral ma wax la ko njëkka balaa moo sori. Bax Bax the mu ne dafe mu ne nga call ko after the live. nga call ko waaw waaye waaye amut sa nomba bi wante mun ngaa jël nomba bi nga call ko whatsapp because du mun a call kenn képp ku ko bugg a call rek. te pare call bi tamit you send voice o ngeen message ko mooy gina a mooy mooy the best waaye mun ngeen koo call tamit because maybe moom am na that time mun ngeen koo call waaye lu ma leen di wax rek mooy ngeen jàppale ko lillahi wa rasul nañ leen jàppale one pack ñu change life one pack at once ñun ñëpp ñu collectively change ko yàlla barkeel everything jabar ju baax la am te jabaram warut a dem façon ngi góor yii dañ nit jigéen ju baax te ku dem ba am jigéen ju baaxee nii war bul nangu mu rëcca la ñun ñëpp suñ toogee gis tey jabari woon paak dem rica woon paak ñun suñ ñun suñ responsabilité la ñun ñoo bon tey ku demoon ba mel nii mu ne dafa bëgg a cëy am jabar ju mel nii tey mu tollu si stage bi ñun ñoo war a ñëw dalal ko mu dal ñu xelal ko waxtaan ak moom wan ko ne nit nga jàmbaar nga tey mun nga ko you can make it lii soo ko defee rek tey ñëw naa daf doon jooy léegi woon paak mu ngi nii di mu ne da great from Bakau waaw eh, waaw dina la kool incha allah ñun ñëpp ñu seet naka la ñoo mën a def rek pour ñu jàppale wante dimbale leen ko rek lillahi wa rasul dimbale leen ko ah yónnee leen ko ngeen seen ko si nombaam bi you know soo ko senee ngeen gis ne deliver wul wala gisu ko sen leen ma ko dinaa ko gis ma wax ko ko because sen leen ko nag turu néemam bi dama bugg a képp a kuy dimbale woon paa ku koo yónnee leen ko ko turu néemam bi sen leen ko ko turu néemam bi suñ soo leen ko soo leen ma ko tamit su suma nomba bi waaye turu néemam la moo nekka dinaa ko kool ma forward ko ko won ko ne am na ku la seen te gisuloo ko seen leen ko ko ba pare ngeen seen ma ko waaye def leen ko turu turam bi def leen ko turu bala seeka bala seeka moo nekk si ID cardam bi ak nombaam bi ngeen def ko fa képp ku ko seen turu turam bi soo leen ko ko senee seen leen ma ko su suma nomba bi mooy triple two 3177 waaye turam ngeen faa def because soo leen fa defee turam moom rek moo ko mën a receive mun ngeen faa def turam ngeen seen ko ko seen ma ko plus 220 triple two 3177 ok Kambi Baboucar soo nee jël suma nomba bi ak turi wan paak bi nga def ko fa bul fa def suma tur bu ma ko buñ maa ko mun a senee turi wan paak bi nombaam bi ak suma nomba bi gars yi suñ ko ko senee ñu sen ma ko turu whatsapp man dinaa ko sen um, dinaa ko sen wan paak you know dinaa ko ko sen waaw loolu laa leen mun a wax because mun ngeen ko koo seen du ko gis because one pack yenn saa yi di nga ko kool ba sonn doo ko am ak yooyu noonu you bu neexee yàlla we will change the life of one park ñun ñëpp we will collectively change it as Gambians as good humans as ñoo xam ne bëgg nañ koo jàppale as Africans tamit jàppale leen ko lillahi wa rasul ok su ma mbokki soose yi ma try because man tamit dégguma soose bu baax waaye nag munoo mooy loolu suma yaay sooseel ok um, mbe min fokkaan rek Um, mo mo lafta pour allié aliye aliye one park maa koy aliye one park maa koy because I I need to help la I need to support la you know Um, um, he really needs support um, because um, am na issues yu mu nekk di go through te jabaram bugguñ jabaram jabaram ak moom ak ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loo xam ne wu not comme man olof laay laaka na soose Gambia amul xaalis ñëpp a dégg olof a sew bilaay dafa métti nag dafa dee try nag bari aliyaa maa koy dorong please aliyaa maa koy aliyaa yes yes yes yes Um, and always naa bugg a tamit comme always ñuy wax positive thing pour gën a mën a dimbale Gambien bi as young people ñun ñëpp ñu cee mën a jàppa ñun ñoo mën a indi jàppa because ñun dañ ñu bugga So gisee sa man maa jéena waaw di crime di wax suma pass waaw change change ñu bari ak lu bari yàlla yu bari ñoo ma dee toppa waaw soo bugguma ñu yow see ok mm. one pack defoon na lii dafa mu nekka ni xaaral man tamit ma def we have to open a project called protect the undefined brain ndeysaan you get me? Yeah. Give chance to people. Wow. Second chance Gambia. Mm -hmm. You know what I mean? Ken Bonum, kuneka dafa buga nit fale ko. Mm-hmm. So ah, ko fale wo dafa talk mune. Ah, Omoxi Kumai said, I don't give a shit. I don't give a shit Okay, but we'll lead you to the streets of Wow, papare one part, luma buga moy. Mm. Dama buga um Kepa koo hamne ne yaa ngi seetaan live bi te xam ne one part dama dama bëgg a su ñoo ñëwaat ok ngeen baalal ma affaire ba demoon legui luma nek di wax rek moy ndeysaan amna ñuma door di ma send message ndeysaan ñu ngey laajte ndax ñu sen ko tu one pack wa sen len ko ko so len ko ko sené ba paré ngeen sen mako so len ko sené li ba paré ngeen sen mako ba paré luma bëgg moy one pack dama bëgg nga gina all whatsapp group hmm. whatsapp group yeb gina ko amalu la njëriñ I want you to change totally te yow loolu nga wax ngeen da nga bëgg change te dama bëgg ñu jàppale la sa jabar an all whatsapp group if you want to if you want if you want to have real peace right now bala all whatsapp group Gambians want to help you and we want to change your life collectively Gambia yëpp daf faa Yep. Yes. Wow, you can talk to them you can talk to them Jalika you can talk to them if they accept it if they want to do it waaye but we really want them to help ñun ñëpp ñu jàppale wante let's put all our differences aside ñu jëm a brother we can change one Pak's life and you will all be happy insha allah because jigéen bu baax soo ko amee su soo change life am rek rek mu change sa life te jabari one Pak dafa baax man xam naa loolu because man ku mel ni one Pak man suma ko amee kuy teel a daw laay nekka wallahi te jabaram bii parewut ko parewut a daw parewut muuf imaginal bu One Pac ñëwee sukka si ronam di ko apologize si saa si mu nangu man aw ma xol boobu waaye dama kontaan si jabaram te di ko gën a encourage di ko gën a encourage ne ko jigéen ju baax la te nañ si jàppa te dinañ ko jàppale jërëjëf Gambia jërëjëf te xam naa ne di ngeen ko support te ñu ngee xaar loolu ñu ngee déglu right now laa bëgg a support bi di ñëw képp ku seetaan vidéo bi siyaa ko foo leen ko mun a siyaa siyaa ko ku ko mun a creatal GoFundMe do it we just want to change his life ak jabaram life am na right now nag du jël long time jërë jëf am am waxal Gambia ngeen jëf Gambia. I really feel relief a bit I really feel maa ngi si maa ngi bokka jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf and jërëjëf suma yaay tamit ngeen ñaanal ma suma yaay bu musa dee lekkut suma njëriñ si lu lew suma jabar ak famille am ak man ñu may foog na sax duñ suma boñ ak awma xawma luy noon baalal leen ma dama leen soxla ye ba pare artistes yi tamit yu try yu yu nekka benn yu nekka benn yu nekka benn yu nekka benn na min especially ST bi ma taxaw disrespect ko suma show bi soona bu mu fa soona benn artiste soonu ko fa thank you very much ST esti Brikama thank you very much ak waa Brikama yëpp jërëjëf I really see you SD bilaay jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf léegi téye laa ko si nii ngeen jàpp si yéen tamit waaw Gambien si xam naa ne dinañ leen dimbale waaw man tamit suma contribution la rek man tamit luñ ma dimbalee ma dimbale leen ko because nii la dañoo dimbale wante yàlla mu dimbale léegi lan nga am pour waa yi jërëjëf léegi Ismaïla Dia. dafa jabaram dafa bugg a Gambien si kon Gambien si tamit buñ ko rusloo nañ leen wan ne suñ burooda moo la jëli oo suñ doom oo suñ mag moo la jëli ba Sénégal ñun tamit duñ toog fii di gis nga sa nga saroo ko ñu di tuuru waaw I know the brother ST will support also am na ko fi comment mu ne mu ne ST the Gambian dream please support a brother soo cegee ba ceeg mhm. mun naa wax ne moom a génn ndeysaan ndeysaan mu ne est-ce que moo ko génn ndeysaan waaw dama ñëw jabaram dama bëgg nga repeat bi bi bi nekkutee si caméra li nga wax nga ne est ñëw na mhm. you know ñëw na pour perform saan jabaram sax dafa wax lu rafet si est est yat buñ sori waaye tamit dañ bëgg a mu support moom tamit dina si jàppa baax na booy ndeysaan ndeysaan teelu maa jubóo moom ndeysaan waaye nit yi rek la te tongoowuñ sa tongoowuñ leen du du nit yi sax mm. man la. ndeysaan man la you blaming yourself man waaw man la jëm mm-hmm. bi maa mm-hmm. taxaw saaga ko noonu te bu amati loolu laa gën a lu may dunda tey ndeysaan you know one part a very pure heart billaahi fen fen munu ko fen munu ko moo apologize ko mu dugal ma ba biti kaam ndeysaan ah booy ma cigarette jëndal ma booy um, um, um, am am am. cigarette soo ko jaayee si xaalis bi dama laa war dama laa war de tooma xaalis bi billaahi soo si mayee woon paak pour mu jënd cigarette xoolal wan xaalis bi jëriñoo leen ko dundoo leen si jàppale si seen boppa ñu gis ne yéen a ngi fresh rafet ba bugg a dee nga def si business yaa ngi gis waaye cigarette wan paak su ko si su buggee cigarette na ko dem xosuli de cigarette rek si ko si jëndee mu ne bàyyi na mu ne mu ne mu ne lépp lu bon bàyyi na ko end of mois dinaa amut end of man right now laa bëgg nga bàyyi cigarette bëgguma mus laa gis waaw su soobee yàlla man bëgguma laa mus a gis ak cigarette waay waay amut waay xam nga fen nag ndeysaan munu ko fen fen munu ko mm. doo ko waaye di nga bàyyi dinaa dinaa bàyyi soobee yàlla incha allah waaye su ma ne léegi léegi nii damay bàyyi cigarette di ko ni may waaye yow sax ma tuur cigarette mu may di waaw mu ñoo ñëw si moto bi xam nga lu ma wax mu ne jox ma tri dalasi tri dalasi ma ne ko man ma jox la tri dalasi du am fen dafa dafa waaru sa si man di ma xuli bu tamit nii mu ne ma bopp bi mu ngi tàng ak yooyu noonu ma ne ko du am man su ma nekkee man su ma nekkee ak one pack te dinaa nekk ak one pack one pack dina change si nii wala si ni la bugga naa change moom pare na ko kuy dem di struggle yi bugga naa change waaye man cigarette sax dama bugga mu bàyyi mu ne ma du ma naan musuma laa roos ak ban nga musu laal drogue laa mosul. drogue mosuloo koo laas laal. waaye dama daan jël roos. da nga di naan sangara. fen munu ko mu ne waaye yëpp bàyyi na ko. ba mu des cigarette daf ko dee tux. cigarette ak taay laa dee moo ko wax si live bi da daan la dee tux eh, right now waaye man maa leen ko promise incha allahu rabbi Gambia boo leen si jàppee. life one pack will change because man dinaa tax yëpp dina ko bàyyi. naa nanka waaw jënga jalika mu ne bàyyi mu ne bàyyi cigarette yombut yombut de waaye dina ko bàyyi jalika jalika waaw waay waay jali waaye di nga ko bàyyi jalika juuf a ñoo ko bàyyi buñ ko fi encourage sax wan paa mu ne yu yu mu bàyyi moo gën a métti waaye wan paa lu ma laa wax mooy cigarette danga koo bàyyi insha allahu rabbi dinañ change sa life as Gambians Gambians yëpp dinañ collective li change sa life léegi laa bëgg a ngeen door di taab seen téléphone yi di yónnee jàppale leen ko buy transu sa jàppale leen ko yépp laa bëgg nga bindal ko jina wala nu ñoo demee dama laa jëndal bug ees képp ku yónnee xaalis dama bëgg nga binda turam binda amaaw bi su ma paree damaa ñëw ñu compter xaalis bi tig fo tak ñëpp dee ko gis ñëpp ñu pare nag seet sa jabar na plan lan la bëgg a def moo xam di dem Sénégal di ñëw di jënd bagage di jaay moo xam ibbi business atelier ak yu kenn xamul waaye Gambia yépp laa bëgg pour buñ frustré loo jigéen ji buñ ñu ñu ñu dimbale woon paak mu ceeñ jabaram bii collectif bi ñu xam ne doomi réewi Gambia dañ baax jabaram bii loolu la nekk di mu ne Gambian si dañ baax ak with all with all one pack is putting her through lii la wax jigéen ju baax buñ bàyyi suñ broda bi te buñ bàyyi jabaram tamit jërë ngeen jëf Gambia Yaga na fi nag man driver bi tey lii la maa def daf maa rey pak ma dee jërëjëf Gambia once again I'm very sorry apologies I really need you mm-hmm. you know what I mean and then Williams who get it tweeted I really don't need want to lose you. Yo udamala amen. You saved my life. I'm a fair man. Yo ngayobu malopita. Zanu Bumadonwa was Zanu of lockdown. It's the CEO of lockdown entertainment. Wow, man buguma ñew ci negative vibes you do. No, why man man bugu man dama in positive way, positive vibes pour you, say naka la ñoo mëna support You know, ki mëna chill, ki mëna chill bro, not not forcing but helping him. as ega waaw nekkul foos de nekkul foos mm-hmm. nekkul foos pour jàppale la waaye képp ku ma fi gis muy def a négative négative comment rek. block dama koo block ba pare ma delete ko. loolu laay def because man. seen diine mutut. aaral man man duma ma dee yaagal yooyu aaral ma seet. ok see moom du la seetaanati. ko some people just choose to be negative. waaw. ñu bari dinañ la support. ST ñu bari dinañ la support. you see am na ku la yónnee. am na ku la yónnee gis nga mu ngi nii dugal te noonu laa bugg a ngeen defee ko. Gambia jëre ngeen jëf. plate leen jërë ngeen jëf. wallahi jëre ngeen jëf. jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay jëre ngeen jëf. képp ku ko seen wan one pack seen leen ko turu néemam ba pare ngeen seen ko tamit si suma nomba bi waaye na nekk turu néemam ngeen seen ko tamit si plus 220. triple two three one seven seven plus two two zero triple two three one seven seven plus two two zero triple two three one seven seven jërë ngeen jëf Gambia yal na fi jaama yaaga bye peace and love send leen love. love me, but mooy peace. love mooy nii. <laughs>